sëriñ bi moom boolewul ak dara boromam ak yonent bi nga xam ne moo ko jox ndigal mu dem ci loolu ba tudde ba tudd jaamu bu yàlla kii bi sëñ bi léppam mi ngi jëm ci yàlla ak yonent bi dundam gépp biñ ko gisee buñ ko noppee gis foofu rek la nekk te it eh, sunu boroom li bëgg cib jaamam moom rek la sëriñ bi bëgg cib taalibeem te lépp itam lépp suñ borom leeral na ko digal na ko yonent bi alxuraan wàcc ci moom li war lépp te mu war ci ndigal mi ngi ci mi ngi fi li war lépp ci wattandiku tere mi ngi fi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 musta noppi ngir bëgg gindi nit ñi gindi ni seen borom wam mën leen jëmale seen borom bind na it ba loolu lu ñuy laajte nekku ci li ci des nag gannaaw dogalu sa borom moo xam la muy dogal yoonu kenn nekku ci moo xam li li li li war a def moo xam nam koy defee moo xam li tax mu di ko def loolu lépp mu ngi ci mu ngi ci yàlla amma jaam ñi nag ñi xam ne dañoo topp la lislaam digle doon fas yéene doon jullit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 loolu leer nañ am ma yàqute nag loolu mosu fee jóg yàqute mosu fee jóg te ki ko li ci ëpp li ci gën a bare ki yàqu moo tey lu baax ñëpp xam nañ ko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 dëgg la ci lislaam la juddu ci ñooñ Sëriñ Tuubaa yi la boole woon boppam rawatina jox bi mu boppam jox jox bi mu jox gi mu jox boppam sëñ saa sëñ Saaliw kon waxoon naa ko njaboot gi muy sëñ Saaliw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 Eh, soxna si aussi fa fa ma jëkkee wax ak moom ca njaareem ca tabaxarit ga wax na ba àggal wax ci ne ñoom ci ndigal la ñuy wéy ma tontu ko ma ko tontu dama ko ne yaa ko ma ne ko ma ne am na loo xam si wax léegi moom nee ci ndigal ngeen la ñuy wéy ma ne ko nag ndigal ak tere nag ñoo ànd mosuñu duñ tàggoo foofu rek laa ci yemoon booba bi del see fii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 te yàquñu dara ci lim lim nekkoon sun borom far ba ci ba fii tey kon moom moomee di sëriñ bi ba mu jóg jëm ci boromam jóg woo nit ñi bëgg leen gindi jëme nañ seen borom bëgg leen woo ma jëme leen seen seen seen borom ca loolu nag la ma sa nekk waaye ci loxo yi loxo tubaab yi lan lañ nekk la nekkoon kenn yàqulu ci sa morom daa ñee ña nga ci lañ lañ doon def ba léegi moom it mu ngi ci lem nekkoon ba léegi kon eh, daal soppiku fi waaw ah, ah, ñu jàdd yoon wa fétal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 adduna ak li ci biir amul amul ci soxla sëñ la nekk ah te noonu la fi bàyyi noo am tawféex mu bàyyi nu fi yàlla boole nag moom waaw kon noonu waruñoo xeer waruñoo waruñoo dana war a mel ne kuy weeru fetal di diir ba mu ba muy ba muy wax ak njaboot ga day day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 te yàqu gënal la ah loolu rek la yàqu moom ku ko def yaa ko yàqu daa daa neex daa daa dëgg gaa ngi fi hmm? ah ah ku yà ku mu neex nag yàqu waaye yàgg yàlla yàgg sa bisu sukuraat yàgg sa bisu bàmmeel yàgg ñooy dem di barsàq ba ba ba bés ba nji ah, ba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 jub rek mooy lépp yooyu yëpp njubadi rek la xeet yooyu yëpp yi gis yëpp njubadi rek la waaw waaw bu ko defee njubadi nag daal daal daal daal lay andil nga sànq sa diine ginnaaw da nga ab julli ngay woote waaw te yaa ngi ci njubadi da ngay daal da nga da nga da nga daal sànq sa diine loolu njubadi loolu lay jëkk andil fekkee ne da nga jëm sëñ bi <laughs> boo jëmee ci bi <laughs> sëñ bi moom am na fu <laughs>